asalaamaaleykum nuyu nañ leen ziar nañ leen waa Sénégal <laughs> dëkk quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans nga xam ne dina lislaam moom moo fa gën a tumuranke ndeysaan dañ koy piétiner da gis ay nit ñoo xamante ni lu leen neex wax ci diina ji te dara du leen ci fekk ay nit ñoo xam ne dañuy défier yàlla di wax yàlla lu leen neex ay nit ñoo xam ne dañuy saaga yonent bi di saaga ay waajuram te dara du leen ci fekk waaye ay boo saagaa sëriñ wala nga wax dara sëriñ buy dund walla mu génn àdduna yow am nga problème dañ lay tëj ci kaso bi de wala ñu ñëw taal sa kër am na benn waay bu ñuy wax imaam maam góor dafa indi woon benn aaya alxuraan mu ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xatama nabiyina yàlla daal daf doon wax ne yonent bi du papaay kenn ci yéen nekk lu dul yonent boo xam ne dañ kaa yónni rek ci yéen mu nekk nag koo xamante ni moom moo tëj nubuwatu maanaam mbiru yonent am benn communauté bi bu génn ne ñoom lay gaaruwaale ko porté ko ci plainte bañ tëj ko ci oustaz Galaajo ba tamit gis nga tëjoon nañ ko ci yooyu noonu waaye gis nañ fi ku saaga waajur yonent bi muy Moustapha Jaxate nekk mu zabzebin naa fekk bu mag boobu noonu dara fekk ko ci bu mujj bi rek mooy dof bi nii ma jàkkaar loolu nii dof bi ñu koy talal micro quoi presse en ligne bi di ko talal micro muy wax lu ko neex di n'importe quoi di wax wax yoo xam ne man dama ciy ruus sax jaaraat Sénégal da ngay jékki-jékki rek mokkal ñaari aaye comme man mi di wax ak yéen sol sa mbaxana aw sa sol sa dara rëy làmmeñ di wax wax yu rëy rek ak foo ko mënti jëmale moo xam ci diina jéeg foo ko mënti jëmale presse bi ñëw tàllal la micro ñu lay invité ci plateau télévisé yi moo xam presse classique bi télévision classique yi sax dañ koy invité parce que gis naa ko ay plateau ba tàyyi Sen TV mooy dof bi nii ma jàkkaarloo presse en ligne bi nag songandoor ko ñoom ñëpp di dem seen kër di ko interviewé xam nga waa ji mu ngi koy interviewé ba pare muy wax ay waxam yu rëy mu naan ko yow li ngay wax tegoo ko ci diine sa xel ngay waxee waaw yow nit koo xam ne amul xam du wax ci diine ay toj toj lay wax di saga diine ji di offenser diine ji ah ba pare ngay dem di ko talal micro te borom xam-xam yi nek fi man mën wax luy jëriñ nit ñi mais kon kan yow yey nga sa bop senegal dal mu ngi nii diine l'islam daal dafa tumuranke amul garde fou amul kenn ku koy défendre waaw ñun dal suñu classe gi nga xam ne fu la tekki wuñ dara ñoo fi di wax <laughs> waaye ñi nga xamante ni am nañ kàddu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te bu ñu waxee mu def effet kenn du leen dégg waaw Sénégal daal defe naa ne ñu ëpp tarixa yi sax lañ gën a fonk ko diine ji te wax naa te wax dëgg yàlla nag tarixa yi diine ji moom moo ko sos tey jii ku fa wax sëriñ dara yow moom am nga problème bu sérieux waaye yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ku ko fa wax dara kenn du la def dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf ko yónni ci ñun mu indil ñu diina lislaam bi moom it mën nga kaa wax lu la neex te dara du xew diina ji tamit mën nga kaa offensé di ci wax wax yi ñaaw te dara du la dal kenn du la def dara ba pare nag ñu continuer di la invité ci plateau télévisé yi presse en ligne bi di la talal micro ngay wax waaye ndeysaan Mauritanie gii ñuy dendal rek loolu kenn ñemewu ko fa Gambie xawma nak legui wala déet waaye temps ya yaa jàmme la ilaha illa allah amna yo xamna bok fa defé day mom dina la coûter cher de waaw Sénégal mom defe naa ne foowee fa dina mom mo gëna yomb ci aduna bi bu bu wër koor jotee ñu foowee diine ji théâtre kat di ñëw di di sabote di saboter dina ji ci biir wër koor dañuy xaar ba wër bi nga xam mo gëna tedd ci wër yi au lieu que ñu def ci loo xamante ni lu am njëriñ la luy jàngal nit ñi seen diine profitoo ci mu def ko occasion mais ñoom ñëpp dañuy dem defar ay sketch ñu sponsoriser leen télé yi jox leen temps d'antenne ñu nekk fa di saboter diine ji ñii di or di làqatu di naan xale yi di ko seetaan ñii di julli di sàcc di naan ak di sàcc di lekk ak di sabote julli géej di def di n'importe quoi quoi mu ngi noonu daal doy na waar waaye dof bii nii. ngeen di tàllal micro muy wax xam naa ne war ngeen ko bàyyi quoi parce que ay waxu dof lay wax xam nga wax ji mu wax dafa rëy dafa jéggi dayo benn aaya rek war na mën a tax tey waxam ji nii mu bañ ko wax wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan néegu yàlla nga ñëw na danga fay séddale préservatif pour lan ne ne ne ne imaam yi nañ koy def pour lan pour encourager Ndiallo te loolu bi mu ñëwee ci la njaalo gën a yokkee waa léegi ku am jabar kooku lan lay dooyee préservatif loolu laay laajte moom waxul sax ñu la ko borom jabar yi de daf nañ koy séddale ci jàkka yi rek pour waa ñi ñii ñëw ci jàkka ji ñuy dem ñoom di mooy yàlla di nekk ak xale jigéen ñi di def naka su dul noonu xam nga avant préservatif bi am mooy yàlla bi demeewul woon noonu mais bi mu amee ñu ne leen léegi. Euh, dafa am ay feebar yu am ay sida yeeg mooy MST yi maladie euh, sexuellement transmissible léegi nag kon pour ñu mucc ci maladie yooyu noonu il faut ñu jëfandikoo préservatif léegi jëfandikoo boobu ñu koy jëfandikoo ñu koy publicité ak ñi initier loolu xam nga ñoom seen yoon nekkul ci diine diine tënku leen ñoom dañoo jàpp ne nit moom boo xasee ba majeur loo bëgg a def rek da nga koy def. waa léegi ñooñu nag ñoo ñëw ànd ak seen ay ONG ñëw di gëm gëmloo nit ñi ne leen dangeen war di jëfandikoo lii nii waaye su fekkee ci diina la moom day préciser même boo ko waree jëfandikoo pour soreel su jur sax day fekk mu nekk sa jabar waaye ñu ko fa indi ñoom duñ duñ fa nekk di préciser naan ay ñu am jabar la ñu wax ak yooyu mais loolu ku koy def mooy diine mooy préciser ne day fekk nga am jabar bëgg a soreel sa njur ak yooyu noonu mu leer naññ moo mais ñoom seen yoon nekkut ci diine lijjantiwuñ diine dañuy ñëw rek ne waaw pour xeex feebar yeeg yooyu noonu MST yi ak ay sida yeeg yooyu nañuy jëfandikoo préservative léegi nag xale bi nga xamante nii moom gis na ñuy publicité affaire bi moom day dem jënd ko rek dem essayer découvrir yoonam nekk su ko defee nag njaalo bi gën a yokk nag loolu mooy mbir bi kon kii dañoo war a tëj gémmiñam kii war nañoo tëj gémmiñam presse en ligne bi tamit war nañ ñoo dimbale ak télévision classique yi bañ kaa invité ci di invité ñi nga xamante ni xam-xam la ñuy wax di wax wax ju mën a jëmale kanam Sénégal wax joo xam ne ku ko dégg di nga ci mën a jàng asalaamaaleykum wa rahmatullah